دنتي عندك الى جيرميت ايدغا بسم الله wàllum parrainage ba day ah. ay problème yi neen maa la ko wax sur quotidien opposition bi ak nguur gi day waaw ma ne ña nga ka dee ci ndaje mi xam ne day moo doon dox na ci diggante direction générale des élections ak coordonnateur yi xam ne day candidat yee leen yónni élection présidentielle ya réew mi quotidien présidentielle yooyee waaw ma la Aly Ngouille Ndiaye day ndajem démb ma def koo gedd de boycotté ñemewu ko te woote ko ma la ñëwul démb laa la la gën a gàtt day lu tolloo juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ay candidat yëkkati nañ seenu loxo yaa jum wala maa jum ma ne loolu am 87 candidat laa la wax la ilaha illallah ma ne la mbir mi daal boo bëggee dégg dëgg la grand théâtre pire la vox populi ne dañ ne salaamaaleykum juróom-ñett fukk ci ay candidat à la candidature kon daal di yëkkati ma ne la opposition ba day waaw daal dinañuy na kon fa xam ne ne kay benn moom la Aly Ngouille Ndiaye kon bind maanaam arrêté ba waaw opposition ba nanu ñeenti fan kon ci weeru septembre bii di ñëw day buntu ministère intérieur lañ fas yéene dem kon taxaw la ilaha illallah yéen kaay ma jamal jàngi ne front de résistance ñu daal di koy retiré nañ ko fi jëlee Aminata Touré ci direct info ne ëpp naa def retiré ëpp naa def parce que gis nga nag bu nekku loon wàllum parrainage gi ah ma ne la toog lu tolloog juróom-ñaari fan semaine lumb di voté ah, Aminata Touré ne waaw lu tolloog juróom-ñett fukk ak benn ci ay candidat ayaa bi mbang satara waaw ma ne la présidentielle ba day ndoortee lu dajale nag wàllum parrainage yi day démb door bis bu njëkk cent candidats la ilaha illallah la ilaha juróom-ñett fukk ak juróom ci ay ndaw ñoo jël si woon kayit ya bëccëg bi fukk ak juróom ñëwaat muy cent cent candidats maa la ko wax Dakar Times ne candidats yi dee li ñuy bëri bëri yëpp waaw opposition bu Sénégal bi ma la juróom-ñett candidats day ñoo ci sérieux nañ leen waxante dëgg nag muy ne la candidat yëpp crédible nañ de waaye nag juróom-ñett yii ñoo ci mën a indil jafe-jafe président Macky Sall journal bi ne waaw journal bi de l'observateur day ne waa PDS day tey la gën a déterminé gën a taxaw ngir wàñ loxal Macky Sall mi la ngir Karim Wade moomee mën a bokk ci élection présidentielle yi nag laa la wax Omar Sarr bu PDS ci les écoles yéene kaay ne sabotage ba tàmbali na de ñii dee commencé nañoo saboté élection yi wàllum parrainage bi day ak international libéral waaw bii de xaw ma mooy ñaateel bi bi yoon opposition bi waa PDS kay ña ngay xamal international libéral googee ne leen seen ndaje mi ngeen war a def ci Ndakaaru Ndiaye jël leen ko fi def lu ko mooy day danañu gàddu ay pancarte laa lay wax ñuy ñëw taxaw ñaxtu Bamedun Sow ci Vox Populi cadre grand parti waaw nee ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay parti politique ñoo am am Sénégal mennum grand parti bu Alaaji Malick Gakou kese moo fi teg programme bas direct info ne tey ma wax leen tey lan moo tax ba Aly Ngouille Ndiaye waaw war a tekki ndomba tànkam loolee ay gëm-ngëmu commissaire Sadio la ndaxte commissaire bi nee yow nguy dama lay woo ci cër wi nga xam kon askan wi jox nañ la ko déy jaare ko ci koolu jëfu président Macky Sall dénk la intérieur ministère ba waaw rek war naa tax nga baax ñaareel ba da nguy mooy da ngaa yàqloo Sénégal alal ju bare bare bare ëpp na junni ci ay milliards ci coowal ArcelorMittal nguy li war a tax nga baax ñett nguy yow yaa fi taxaw ne di nga def sa kémtalay kattan loo mën ngir sa candidat bi mën a jàll te nag nguy li fi def ci pétrole tim a ngi nii commissaire Sadio may wax ci direct info de ne ko nguy coowal pétrole tim joojee waaw yàq yi nga xam ne nag maanaam ko nañ la ko caaji ndey nguy li la war mooy setal sa bopp tegi tuuma weedi li nit ñuy wax lii tax man commissaire Sadio mi lee ma ne Aly Ngoye daa war a démissionné baax zoom info ne gis nga nag application kon parrainage googee waaw lantinoor bi nga xam ne moom la ñu war a seggee gars yi day lantinoor daa fëq de maar day taali ma ne la fi mu nekk nii bëccëxoo goo xam ne sabar gu tas lañ ne a gis ci ëtt politique lee ak média yi waaw kenn du Aïda ci les ko yéene kaay nee parti au pouvoir nee ma xanaa xamoon leen ne ñoom commencé nañ seen parrainage ba ñetti weer te ginnaaw ba tey jëlee marti Italie Aïda Mbodj na maa ko wax source aané tey waay ñi nga xam ne kon dañ leen a ci élection 2012 yi leen jëfandikoo leen lu mel ni ñoom Moustapha Niass Tanor ak ñeneen ak ñeneen fexe ba Abdoulaye Wade dem day waaw wallaay yàq nañ ko ñàkk nañ seen bakkan te mujjul fenn perte nañu mësuñoo recevoir ay waay ay waay jile Ibrahima Diagne bu M23 waaw nee lu tolloo fukk ak juróom-ñaar ay doomu aadama day lañ ci torturé final leen violenté leen dóor gaañ leen ñeenti doomu aadama ko ñetti seen bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Banna Njaay day ca lañ ko reyee ca Podor allahu akbar ñetta loru yëpp juróom dong lañ ci ndàmp te ñetti ñëpp door la ñu dëkk ñeenti nit dee ñaata nit lañ fi door torturer leen tëj leen ci kaso ba léegi nii Macky Sall dalalu leen <laughs> xam nga ne lii mooy wane ni suñ politiciens yii wallaay dee ci seenu combat jaru ko boo ci dee yàq nga ko te perte nga boo paree mën a la tëjal